xam nga lan ngeen war a def je pense donc je pense que da ngeen war a bàyyi ay débat juridique da ngeen war a am courage jàkkaarloog sénégalais yi. ne leen soit ngeen ne ngeen ne leen. dégg naa Omar Youm di soutenir. l'idée du report ngeen ne leen xaaral rek ah situation àddina bi dafa doy waar dolli leen ñu ñaari at. même si c'est inconstitutionnel. wala boog ngeen ne leen yéen yéen Ousmane Sonko. wala boog avec sa na leen. wala boog ngeen ne leen Sénégal loi moo ma ma ne wala boog ngeen ne leen ah dañ leen di ñaan. ngeen ah, bàyyi président Macky Sall mu présenté wu waat. parce que situation àdduna bi dafa doy waar. ayez ce courage là euh, je dis Maïmouna Maïmouna arrêtez le débat juridique Maïmouna dëkk bi c'est on est dans une république loi moo ñu tënk. du lu ma neex way ñun neex nañu ñu ne deux ans nañu def nii république dafa ne le mandat du président de la République est de cinq ans su jeexee dañu def élection mu tënk durée booy def élection. donc d' ay waxu report. dëgg ba man report. pourquoi on on reporte. qu' est ce qui fait que Omar Youm na hypothèse bi c' est le président du groupe parlementaire à l' assemblée c' est son opinion mais man sama opinion personnelle mooy dara lu fi jar report lu ko fi war lu ko fi waral. on pays Sénégal mi ngi dox président de la République doit prendre une décision sur sa candidature ñun on souhaite qu'il soit candidat parce que c'est le meilleur candidat pour qu'on passe au premier tour donc loolu kay yomb na jarul jarul. et s'il euh, dit qu'il n'est pas candidat. loolu yàgguñ si suñ ci yeggee man dinaa fi ñëwaat toog suñ fi yeggee invité dinaa fi ñëwaat toog.